waa di waxaat bu baax rek baat baa ngi nii leer na naañ ñi bi xal-xala yooxin moom ngay bind 333 mooy jalasa 333 moom ngay bind bi xal-xala yooxin boo ko bindee ba pare saafara bi nga wut juróom-ñaari balu faftan nga bindaat ko si nii nga juróom-ñaari bal nga jël ko wut kibub eh, xorom xoromu mali bi def ci biir saafara bi boo ko defee ci biir saafara bi léegi saa boo sangoo dangay toj benn ba juróom ñaari fani mat juróom ñaari bu fani bu matee sa sa buntu wërsëg gi yépp ay ubbeeku te benn dootu tëju te nit mënatu ci yow dara ndax xorom bi lépp lu mu fekk sa yaram daf koy dindi boo xasee toj bal bi sa sa bunt yépp ubbeeku na allahu akbar am na mbër yu ko xam mbër mu ko xam de lii lay def gis ngeen lii képp ki nga xamee ne danga nekk ci bërëb ki danga nekk ci ab bërëb ñu la fay xatal wala nga yëg sa buntu wërsëg dafa tëju wallahi fexe la am lii baat bi moom rek ngay bind 333 ñu bindal la nga wut juróom-ñaari mm, bal nga bind ko ci nii benn yoon dugal ko ci biir saafara bi wut tibb xorom def ko ci saabo sangoo nga toj benn bal saabo sangoo nga toj benn ba juróom-ñaari mat boo paree nga génnee juróom-ñaari kilo dugub nga saraxe ko sa bunt yépp ubbeeku na te benn dootu tëju waaw loolu kay moom képp ku ko def moom ah jàppal ne yow moom eh, loo dox mu sotti waaw kenn dootul man si yow dara ngeen wax ngeen gën a abonné rek te partagé